ba pare tamit comme nu ma ko waxee Gambia fii comme like ndaw yu bëri comme dañ dee feel like ne ah politique pour mag yi la yes gis nañ ne mag yaa faree dem ñun ndaw yi ñu ngee jooy soo bàyyi xel Gambia bi 60 percent of suñ population bi ñëpp ndaw yi lañ young people lañ young people yi Gambia suñ paree ñoom ñooy ñoo amee fii co dëkk bi ñu a sense ne mooy 60 percent ñun la ndaw yi yëpp suñ ñëwoon ñu ne dañoo saaneel benn njiit njiit boobu mooy win so njiit boobu ñun suñ ko joxee suñ kaadu fa soo xam na ne ñun ñoo ko saanil so lu soxal ndaw yi tamit moom su demee uh, win elections nekk président dina mun a dimbale ndaw yi